mbaa yéen nga ca tey ci bés bu nu jagleel xeex lekk gu bon ak xiif ci at war nga këpp bés bi la journée fii ci réew mi am na gune yoo xam ne xiif ak bëgg a rey ci juróomi xale yoo jël benn bi wala muy lekk baaxul wala boo xiif daal nga koy bëgg a rey lii te loolu nag mënees na ko juróomi musiba dëgg ci wéru yaramam loolu tax ba yëlekaay groupe média bi ne laboratoire de l'alimentation humaine nag nee na lu mel ni nebedaay foñu ak yeneen yoo xam ne ñu koy bay ci réew mi mën na indi saafara dëgg ngir gune yi nag di door lekk-lekk gu baax ci réew mi xiif tamit daal dakk ci Sénégal yëglekaay groupe média bi ne yeeg woon ci daara ju kawe loolu daal ko sauvé ginnaaw toj geeg yàqate geeg taal gi ca faculté des lettres ak médecine bés bi la journée njiitu réew mi Macky Sall démb ci conseil des ministres fësal na bëgg-bëggam dëgg mooy sam plan d'urgence boo xam ne dañuy moderniser archives yëpp ci Sénégal le quotidien ginnaaw yàqu-yàqu yi amoon ci daara ju kawe ci Ndakaaru université Cheikh Ndakaaru mémoire yi lu waxul dërëm daal xuréew ko ndax fa mu nekkoon dara jógew fa ndax archives lépp la gaay numérisé woon Soleil ne njiitu réew mi Macky Sall sàkku na ci premier ministre bu Sénégal Amadou Ba ci lëkkaloo ma ñu nekk ci archive bu Sénégal lépp samp plan d'urgence dëgg ngir moderniser archive yi ci Sénégal Soleil national ne moom njiitu réew mi Macky Sall ak président yu Afrique ñoo ngay dox tànki jàmm nag diggante Russie ak Ukraine les écoles président Macky Sall kay ak ñeenti naataangoom yu Afrique ñoo nar a dem ci Ukraine bu ci noppee dem ci Russie ndax dañoo nar a dajee président Poutine ak Zelensky ngir waxtaan ñoom ginnaaw firnde gi jëf seen diggante ëllëg lay doon ak ginnaaw ëllëg ngir fexe daal fay lakk gi njiitu réew mi Macky Sall tey jine la jóge Sénégal dem ci Russie ak ci Ukraine wal fajri ne moom njiitu réew mi Macky Sall ma nga jëm ca bitim réew ngir fay lakk gi am diggante Ukraine ak Russie waxtu woowu nag këram gaa ngi tax te am lu ko doy sëkk ngir daal muy ni ci saafara léefu ne waaye yeewi kay waxtu ñu nga jébaane njiitu réew mi Macky Sall ci kanamu kuréelu mbootaay xeet yi ndaxte gars yi nee nañu waxtu wi nag ak yëlefu doomu aadama yi lépp lu ñu tëgg gatan ko te loolu daal mënta wuy mukk ci Sénégal vox populi ne waaye yeewi kay ñu ngay sàkku dëgg ci waa kuréelu mbootaay xeet yi ñu yebal nag lu gaaw benn commission enquête boo xamante ne nag dina li indi leeral dëgg ci li xew dëgg ci Sénégal réseau des du Sénégal nag ñu ngay naqaru dëgg li amoon ci xew-xew ci ndorteel weer wi ndaxte ñoom jigéen nee nañu lu toll ci juróom-ñetti jigéen la gars yi sii violé leen ginnaaw xew-xew yi amoon benn jàpp ñaar ba ñetti fan ci weeru juin gi ñu nekk ay waay lii tamit mbaa jàmm la yëglekaay bi ne ginnaaw ba taaxalu Abdou Karim Diop mi visé ay acte terroriste ak acte insurrectionnel yu dara procureur Abdou Karim Diop ndaxte nee nañu nag ginnaaw ba gi moo génn li nag mooy beneen song woo xam ne def na ko jëmale ko ci waa Pastef waaye nag na ñu ne déet ne waaye nag ñu ne daa far lool rax ci doole nag ñoom gaa Ousmane Sonko nee nañu procureur nag njiitu réew mi Macky ko joxoon dëgg fa muy jaar ak di ko digal muy def maître Ciré Clédor Ly di kenn ci avocat Ousmane Sonko ci Vox Populi ni intérêt na jël yóbbu ko ci CEDEAO ndaxte nag nee na bi mooy fukkeel yoon woo xam ne saa bëggee dem gis Ousmane Sonko alkaati langa bank ne mukk du ci dal maire Ciré Clédor Ly li nag gàllankoor dëgg la indi ci liggéeyam ndax saa bëggee gis client bi kaay ko du ci dal enquête ne ginnaaw xeexu yi amoon ci ndorteelu weeru juin gi nag parquet bi nag ay charge yu diis gan la nar a jël teg ko ci ko Ousmane Sonko ndaxte nag nee nañu li xewoon ci ndorteelu weer yi lépp a Adji Sarr ak Mame Mbaye Niang geneen coow a ngi ci kawam talkaan dajale nañu preuve yëpp ngir teg ci kawam moom jiital Pastef beneen charge l'observateur ne en nga yëg nga ñàkk yëg waa Pastef daal nañu seen mel dëgg jëm ci kaw procureur de la république yéeg kaay groupe Futurs Médias bi ne diggante Sonko waxtu wi nag gaa ci dox tànki jàmm waaye daal laaj yi daal ci bu weesoo jéego ak coup politique yi ci amee yëgle kaay bi jox kàddu gi Alioune Tine docteur ak Babacar Dione ñoom yi Macky Sall njiitu réew mi am ngir régler nag coowal Ousmane Sonko gi nag ci jàmm moom avocat bi nee foofu ñu dakkal nag délit de corruption bi mu jàpp dafa obsolète wala bokk ñu gracier Ousmane Sonko nag donte procédure yi daal noppeegul libération ne ba tey nag jàpp gaa ngi mel ne tulleeg mën a ci kaw yi ndax structure benn daal ba tey ay mbiram daal teggeekuwul déedéet ndax tayle wàllu gën ay laa lay wax jëm ci njàpp gi jëm ci waa critique ne yi nga xam ne kenn déggu ci coow li coow ci réew mi ay directeur généraux la ak i PCA nag patala ngi def ndax ñoom itam seen baat yi faatu ci bitim réew ngir ñu delloosi leen ci réew mi budget bi daal jaral takk laa lay wax ci kàddu yi nga xam ne Aïssata Tall Sall daal yëkkati na ko ndax moom jëwri gu ñu dénk réew nee na budget bi nag na ci weeru mars gi ñu génn waaye le taw ma nag mbiri daal na les waxul ndax koppar googu faatu doom yi nekk ci bitim réew tos ko rek dëgg ndax saa bu seen naataango faatu ci nag jafe-jafe ak coono dëgg la ñuy daj ak a yalwaan ngir delloo ko ci Sénégal ngir jébal ko boromam laas ne coowal suuf dëgg nag moo joli ca ndàngaante nag am na benn libanais bu ci tudd benn français ak benn général ndaxte laas nee na ñoom ñetti gaay rek ñoo nekk si ca ndàngaan tribune ne ginnaaw milliards yi nga xam ne état bu Sénégal mu ngi koy siife diggam ak banque mondiale gaay ngi ngand ngandulu ak réyal mbagg ci ay bor yoo xam ne lépp na ci ndootal askanu Sénégal gépp lay tegu jamono goo xam ne askan wi nag ñu ngay bëgg a dee xiif ak jafe-jafe yi nga xam ne daal ganes yi yëglekaay bi lu koy firndeel nag ndax lu toll ci ñaaru fukki xale yoo xam ne ñoom ñëpp ay mineur la ñu dañoo wan lor ñoom ñëpp bu seen nañu wàlli tamit mbaa jàmm la le ci wégal mu tàng jër la jëm ci réew mi ginnaaw manifestation yi gars yi bëgg dem ak signal wal fajëri bi nga xam ne la gars dagg waxtu wi bés bi la journée maire bu Ndakaaru Barthélémy Dias nag moom la fal président bu métropolis moom doomi Jean Paul Dias nekk africain wu njëkk wi dirigé woowee kuréel nag loolee nag tax ba Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru dugg ba faw ci taarix foo sobile ak libération nag benn dënn moo daanu ca koloor fa ñaari nit am kenn koo xam ne waxtu wi ma nga ci diggante dund ak dee ndax ci comment la nekk ne benn agresseur nag moo campen waaye paaka mu dee gaay jàpp ko dóor ko ba mu dee ñu ne dee na waaye l'observateur nee na benn jabaru móodu móodu la fa rëb ëmbal mu doom ji mais da ngay seet loolu rek